بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي ندلو سوى تسود جتاي السلف مع القرآن ما جدين بنان لنو دان دندي أك القرآن الكريم نجن ديكو أم تسين ترجي دي لا مزو دي كورا ما نجن نيو كيف كو خمنا يانجي سافو كرجي نجر القرآن الكريم واي دي نيو كي خمنا موي مدير بشي عبد العزيز كامرا واي أكيف كو خمنا يانجي ينجو القرآن الكريم كي دي لكر di nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy Mouhamed Moustapha Sy nga xam ne moo yore wàllu caméra bi fii ci Mbour di nuyu am Mbour yëpp waaye ak fépp foo xam ne waaye mu nga fa di topp jotaay bi nga xamante ne moo di asalafu ma alquran mbokk yi ñu nekkoon ci histoire ayuba alayhi salaam ba ñu yeggoon fi nga xam ne fa la tàllale ay loxoom ñaan yàlla bur bi subhanahu wa taala yàlla nettali ko ci alquranul karim ca sourate al anbiya wa ayuba id naada rabbahu anni massani addurru wa anta arhamu rrahimin ba mu talale ay loxoom ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala ne ko yàlla ab lor tege na sama kaw ak nattu te yow yàlla buur bi subhanahu wa taala yaay ki nga xamante ne yaa ëpp ñëpp yërmande yow buur bi subhanahu wa taala jalla wa ala mbokk yi foofee la nuy wéy tey ginnaaw buñ la nettalee yi nga xam ne mooy majhudaat yi nga xamante ne soxnaam def na ko taxawaayam nga xam ne jigéenu julit ñëpp war a roy ci moom saa yu yàlla tegee seen borom kër yi nattu ñu bañ koo tappas mukk waaye ñu bañ leen a tappas mukk ñu ànd ak ñoom muñ googee nattu ndax ñu xam ne buntu aljanna moom moo ubbeeku seen kanam ayuba alayhi salaam ba mu ñaane yàlla buur bi subhanahu wa taala ci ndiir bu gaaw tombeg soxnaam xëywaat na liggéey wuuti la nga xam ne moom la koy andil ci ab lekk ayub dafa jéggi dégg-dégg yàlla buur bi subhanahu di ko wax yu ne ko yaa ayub yow ayub sa tànk bi laa bëgg nga dóor ko ci suuf si mooy laaye boobe ngeen di dégg urkud bi rijlik hada mughtasalun baridun wa sharab yàlla ne ko ayub sa tànk bi dóor ko ci suuf ba mu ko dóoree am ndoxu yool nde boo xamante ne dafa génni yàlla ne ko ndox mi jël ci nga sangu ci soo ci sangoo lépp loo xam ne feebar la bu tege woon ci sa kaw jëmm ji dafay wér ci saa mu ne ko dóoraatal sa tànk bi mu dooraat ko beneen ndox daal di génnaat yàlla ne ko ayub wa sharaab naanal ci bii soo ci naanee lépp loo xam ne mooy feebar gi li féete woon ci biir day gis ne dafay wér ci saa si lenn ci borom xam-xam yi nee nañu benn yolnde moom moo génni maanaam benn ndox ci ndox boobee ci la naan ci la sangu waaye li nga xam ne moom la jumhur yi andi li gën a wér mooy que ne ñaari yolnde la benn bi mu daal di cay sangu benn bi mu daal di cay naan ci saase rek yàlla daal di koy saafara lépp loo xam ne feebar la bu nekkoon ci zahiram wala batinam moom ayuba alayhi salaam yàlla daal di wéral lépp allahuma shi marda al muslimin ni yàlla saafaraawe ayub yàlla na yàlla saafara képp koo xamante ne nattu na ko yal na yàlla saafara bépp julit boo xamante ne feebar na yow mi feebar mu ñal yow mi feebar mu ñal waaye nu ngi lay ñaanal yàlla buur bi subhanahu wa taala yàlla may la shifa ba ko yàlla saafaraawe moom ayuba alayhi salaam mu daal di jóg toog rafet lool wér lool yàlla daal di koy andil xulla yàlla andil ko la nga xam ne mooy manto bu jógee ci aljanna solal ko ayuba alayhi salaam la hawla wala quwata illa billah بعد البلاء نعم وجزاء وثواب بكو يالا نتو با yàlla يالا بور سبحانه وتعالى فاسيني ندوكل فاسيني سارغال كيغا خامتيني موموي ايوب ndax yàlla daf koo natt mu daal di koy muñ wajatnahu sabira ni'ma abd innahu awwab yàlla bam ko nattoo di xool ban jaar la yàlla ne wajatnahu sabira dama fekk mu nekk koo xam ne muñ kat la kon yow mi yàlla teg nattu dafay xool ndax yow di nga muñ wa jaalna baadakum li baadin fitnatan atasbiruun yàlla daf lay nattoo nit wala mu nattoo la lenn xool atasbiruun alxaraad atasbiruun ndax di ngeen muñ yàlla nee ma fekk ko mu nekk ab kat innahu mom bokku na ci ñi nga xam ne ñoom ci yàlla bi subhanahu wa taala yàlla daal di koy solal la nga xamantene mom moy mbalan bu jóge ci aljanna yére bu jóge ci aljanna fatanaha ayub min aljanib al ayub daal di jóge fa nga xamantene moy fa mu nekkon te mu xawa salte mu daal di tok ci benen walla ga fekk soxna sa xawna yéex ñëw soxna sa bi ñewé mu daal di xol fan la ayub doon kisul ayub mu daal di gesu gis gor gu rafet waju taru sol yére yu rafet yére yoo xam ne mu ngay malleex lool ndax yére ba aljana la jóge mu ne ko yaa abdallah mu ne ko yow jaamu yàlla bi hal raayta hada almubtala alladi kaana huna laalla alkilaaba dhahabat bihi aw diaab mu ne ko jaamu yàlla bi nekkoon fii ndax gisoo ko mën am xaj yi ñoo ko diri yóbbu nanu ko wala tilli ñoom ñoo ñoo yóbbu ko ayub daal di taxaw fa kallamat fu saa soxna si taxaw di wax ak ayub di wax ak ayub ايوب daldi ne يا ya amatallah yow jaamu yalla bi yow soxna si انا ايوب انا ايوب زوجك mu من ko man la ayub laqad radda allah ilayya jasadi yalla wiral nama yalla الله سبحانه وتعالى هو الطبيب القادر هو الطبيب الاول والاخير هو الشافي يلا مومي كيغا خامتني مومي سافرا بيت فيبر بو خامني نيب دنجي تيلي دلو لين كو سي يالا سبحانه وتعالى القادر alqatir al alim al alim yàlla moom mooy ki xam lépp delloo leen ko ci feebar yi yàlla bur bi subhanahu wa taala daal di leen koy saafara bi ayub waxee soxna si ne man la ayub ana ayub soxna si daal di gestu mu ne ko atasxaru minni ya abdallah ndax danga may ñaawal ana ki nekkoon fii soxna si di xool ayub di xool ayub ba daal di koy xàmmee fa shakara arrahman wa hamidah ñu daal di sant yàlla bur bi subhanahu wa taala yàlla ne wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum أيوب عليه السلام كما جاء في البداية والنهاية أو كما جاء في تفسير ابن كثير وبقية التفاصيل أيوب يلا ندلو نكو على لم لكن كيف كثير منهم دنينا يلا برب سبحانه وتعالى دفكو تيما الأكبين نير نير بوبي يلا دي تاو أي ورس أكي خالص تكو أيوب تكو أيوب أيوب دي كفر دي كفر ديكو أيوب دي فر يلا نكو فقيل له نكو أما تشبع يا أيوب قنا دو يلا ay di for di def ci lekket di for di def ci yére di def ci poos di def fu nekk ñu ne ko xanaa doo doyal yow ayub mu ne ko man yasba'u min rahmatika ya rahman man yasba'u min rahmatika ya allah man yasba'u min rahmatika ya rabb ayub ne ko yow yàlla kan moy suur kan mooy doyloo ci li nga xamantene mom moy mooy mande kan moy doylo ci sa mande yow yàlla buur bi subhanahu wa taala wa fi riwayati imam al-bukhari kama dhakarahu min hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu مني بيكو يلا وخيلول مني ولكن لا غنى عن بركة عن بركتك يا رب ايوب نكو يلا بور سبحانه وتعالى نان لا يدوي سي سك بركه نان لا يدوي سي سك بركه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سنين رجل يلا يلا واتي ين بركه يي جوغي سي اسمان توف ني نكو يلا واتي ايوب يلا دوتي سي كاو ايوب ورسك خي غدول جيخ يلا نكو يلا بور سبحانه وتعالى دوتي سي كاو wa ahlahu yàlla daal di delloo ayub njabootam parce que ay doomam ñëpp a deewoon yàlla daal di koy delloo wa mislahum maahum ak ñeneen ñu dul ñoom maanaam yàlla daf ko koo dubleel bi yoon waxtalafa ahlu taarix aw il mufassiruun borom xam-xam yi daal di ci andi ay yaatal bu ba yu baree bari nan la ko yàlla delloo njabootam waaye dollil ko ci ñeneen muy ñaar ñenn ñi ci ñoom dañu wax ne yàlla dafa dekkil ña nga xam ne ñoom ñoo deewoon ayaanan nañu deewoon yàlla daf leen a dekkilaat ci saasi yàlla telewul dara nee na bi leen yàlla dekkilee yàlla meyaat ko kattan mu dundaat ba amaat ay yeneeni doom bokkul ak ña nga xam ne ñoo deewoon ba dekki muy ñaar mooy wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum yàlla nee ne ma daal di koy delloo la nga xamante ne moom mooy eh, njabootam waaye dolli ko ci leneen am ñu ne déedéet ayub daf ne ko yaa inna durriyataka sa njaboot gi dee woon ñoom ñu nga ci aljanna ndax ñu andi leen ci aduna ayub ne déet yàlla daxum hunaak daxum hunaak bàyyi leen foofee ci aljanna yàlla daal dina bàyyi ci aljanna daal di koy mayaat beneen njaboot moo tax borom xam-xam yi ne moo tax yàlla ne daf ko delloo njabootam waaye dolli ko ñeneen ñu bokkul ak ñoom nga xam ne bu yomal qiyaamee bu boole njaboot googee ak njaboot gi yàlla dolli ko ñoom ñëpp ñu mën a nekk ca aljanna am ñu ne déedéet yàlla bur bi subhanahu wa taala daf ko meyat ay doom waaye mu jox ko tuyaabay yoolu muñ njaboot ga nga xamantene ne moom la amoon mahma kaan yàlla dollil na ko fay na ko ba daal di koy wis kii moom mooy ayuba alayhi salaam rahmatan min indina wa zikra lil aadidin yàlla daal di koy defal lii lii ko yàlla defal yëpp nee ne wa zikra fàttaliku la lil aabidin ñeel ñi nga xamante ne ñooy jaamu ko tu yàlla iman alladina btalahum allahu fa sabaru ñi nga xamante ne yàlla bur bi subhanahu wa taala daf leen a ñu daal di muñ اصبروا يا عباد الله فلكم عند الله اجرا وثوابا اجرا عظيما جنات عرضها السماوات والارض من يا عباد الله يلا دا فخول كو نيك فك من من نمو تول ولا لم لا بغ فاي الجنه يلا دادي لي نتو نتو غو تول نونو من ابواب الجنان باب يقال له باب الصبر امنا بنتو غو خامني تي بنتو الجنه يا بنتو مون لا تدو كودول مون دو فا دغ موك كون يلا فا تك لا نتو nga daal koy muñ هذه قصة أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يلا نكتنكو مدادي رفت لك من دادي نيان يلا بربي سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين yàlla bur bi subhanahu wa taala def ko muy fàttaliku ñel ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy aabidin ya lan la ci yàlla tek wa ismail wa idris wa dal kifl kullu min as-safirin allahu akbar ismail xoolal ab doom tey jii crise bi am ci aduna bi dom yaa ngi xulloog seen way jur yi doom xex sen xeex seen way jur yi doom yaa ngi way jur ismail xale bu ndaw bàyyi ji ko ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuk damaa gis yàlla di ma jox ndigal ne naa la rendi naa la rendi mu ne ko yaa abati ifal ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-sabirin doom ji siggi xool baaye muuñ mu ne koy saa baay li la yàlla digal ne la rendi ma rendi ma sa satajiduni di nga fekk ne man mi insha allahu bu neexe yàlla min as-sabirin danaa bokku ci ña nga xam ne ñooy muñkat wa idris yàlla ne ak idris mbokk yi roy leen ci idris borom wa rafanaahu makanan aliya yàlla daal di koy yëkkati ba ca ñeenteelu asamaan idris moo njëkk bind ak xalima idris moo njëkk ñëw yére ki nga xam ne moo njëkk defar organiser la nga xam ne mooy état ba ci jamonoom ñu daal di fay defar cent quatre vingt huit état ki nga xam ne moom mu ngi doon wax soixante douze lakk idris alayhi salaam yàlla ne ne waa dal kifli dal kifli dul kifli alladi takaffala qawmahu ala alxukmi alayhim bil adli wal insaf ki nga xamante moom mooy dal kifl dul kifl moom dañu ne doomu ayuba alayhi salaam la hada loolu la ñu gën a siiwal ci téere dul kifl dañu ne doomu ayuba alayhi salaam la xam ngeen dul kifl lu tax yàlla boole ko ca am na ay jaar-jaar yu bëree bëri ak iblis al ayn al xabiis iblis jéem ko lalal ko ndëgg sarax yu bëree bëri mu daal di cay rëcc xool leen dul kifl kaana yusalli miata marratin fi l yawm téeméeri yoon la dul kifli daan julli ci benn bés maanaam julleem téeméeri julli la woon ci bés yéen a ngi ne juróomi julli juróomi julli baaduna yudayyuna sala ñenn ci ñun dañuy sànk julli kulun kaanu min asabirin ñoom ci muñkat yi lañu bokk wa adxalnahum fi rahmatina innahum min asalihin yàlla daal di leen duggal ci li nga xam ne moom mooy yërmandeem yàlla duggal leen ci sécurité am duggal leen aljanna ndax lan kaanu ndax ñoom innahum min asalihin bokk nañ ci ña nga xam ne ñoom ñoo baax allahumma adxilna fi rahmatik اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم أدخلنا في رحم رحمتك اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يلا لا جنولا قول بتي لنغا خمنا مومو يسك دوغال واي لي نيولا نيان مو يلا لنغا لويتي داري تي نيوين اف بقي انه رمضان انه رمضان رمضان اقبل رمضان اقبل بقي ويرو كورا ني mu ngi fëgg seen buntu kër yi weeru koor yegsi na ubbi leen ngeen ne ko taqabbal de ko yegsil tafaddal ya ramadan shahrul quran shahrun fihi unzila alquran weer woo xamante ne ci la yàlla bur bi subhanahu wa taala wàccee alquranul karim shahrun fihi tuftahu abwabul jinan weer woo xamante ne ca la nuy ubbi buntu aljanna yi wa tuzayyan ñu daa di rafetal daa di taaral daa di fomp organiser nettuwaay yi nga xam ne mooy buntu aljan yi istiqbalan li pour mën a lan gatandu bégal ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy woor shahrun fihi tuglaqu abwaabu niran weer woo xamante ne ci la ñuy tëj buntu safar yi ne ko ràpp wa tusaffadu shayatin ñu daal di cay kii tënk li nga xamante ne moom mooy shayatin yi shahru xayr suumu qiyamahu suumu naharahu wa quumu laylahu mbokk yi woor leen ko woor leen ko ngeen naafila guddiya بولن باي ترى كفاكم استبشارا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره الذي اتفق عليه بخاري ومسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر ينتي صلى الله عليه وسلم يعني كوار ويرو كور نغم يالا غوما سك واحتسابا سكو يول مويتو ميرغ يالا ويرو كور جي سوي yàlla jéggal la say bakkaar lépp lu ca jiitu gufira lahu ma taqaddama min danbihi moo xam bakkaaru bokkaale la moo xam bakkaaru sàcc la moo xam bakkaaru njaaloo la moo xam bakkaaru fen la ak lu mu manti nekk tuubu ila allah astagfirullah wa atubu ilay astagfirullah wa atubu ilay sooy woor weeru koor yàlla daal di la koy jéggal insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw comme niñ leen ko waxee salaf ma alquran ñu daal di dellu si خول مغنا نان لا ني دان دوندي القران الكريم تي ليغا خا نمو موي كور ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم